la moo tax mënta ñëw parce que yow yaa ko teg fa mu ne yow la moo tax mën a koo ñëw parce que yaa fa teg sa bopp fi nga nekk yow yaa fa teg sa bopp te xam nga ne boo ñëwee am nay risque kële moom dafa yaa ngi yaakaar ne boo ñëwee dañ lay jàpp ñoom ñaar ñoo nekk dans le doute jamono ji léegi nag xam naa seen campagne bi nan la nar a demee WhatsApp hmm. WhatsApp lañ nar a campagne parce du kiriku mooy wër ci dëkk bi kiriku daa am daa Abdou Mbow daa am ñaari nit koo xam ne sa ah ñi ko bëgg. Abdou Mbow kan moo ànd ak ñi bëgg Abdou Mbow dinañ dinañ votel Macky Sall. keroog kii wax na ko lu am solo nee na Abdou Mbow bu doon si journalisme ba. malgré woon journaliste bu tax ñuy wax parce que Abdou Mbow gëj naa aay jéem a dem dellu ci yooyu noonu xam ne amul xam ku dem ba nekkoon ay di gérer euh, bi seen kii. dem ba ñu lay wàccee ay xaw ma nga xam ne war ngaa xoolaat sa bopp xaw ma ñaateem ban position la la occupé ci seen liste bi nga xam ne kenn considéré tu ko xam ne moom mën naa bàyyi. ñooñu parce que ñooñu amuñu base base amuñu base. politique politique amuñu poids électoral amuñu envergure. locale bay am nationale seen koñ kenn xamu leen dañ doon xataraayu nii rek men kenn xamu leen. <laughs> dañuy taxawal dañ jaaxal kii wa ngi nu mu tëddi euh, Ablaye Dieng ngi bi ko kii. bi ko kii Amadou Ba Amadou Ba bi mu ko defee tête de liste départementale. dañu bokkul. mu jekki jekki toog ba heure bu ko ne ñàkkul ne. Macky moo ko influencé loolu ndax nee na moom du voté contre Macky Sall. waaw kon Macky dafa jaar parce que lu waay nangu woon. dafa gore rek lu waay lan gore. ah dafa gore rek li mu se li mu seex Amadou Ba da nga koo xam ba naan dafa gore. nee na daal du voté contre Macky Sall te loolu ci turam la ko bu gore woon dina def ni mu def Ablaye Wade jël doomam exilé ko pendant combien d'années mu nekk fee mënta ñëw nekk Qatar di WhatsApp rek ba ay maam jaara am loo tax ñu gedd maire bi doon wax démb xam nu mu tuddi fàtt naa tur bi Waré Sarr ñoom ñëpp gedd xataraayu. nee na bientôt bi lañ sonn rek waaye bàyyiwuñu dañoo sonn si bientôt lan moo ko loolu kan moo ko teg te du Macky Sall moo ko teg. Mm. Macky Sall mooy kan ki Abdoulaye Wade jëloon def ko homme de confiance jote ak sa Seck problème bi jógee ci moom Abdoulaye Wade jox ko ndombal tànk bu ne mu war Abdoulaye Wade tey jii bu ko keneen waroon war naa kaas. ayca am na solo bu baax Sall mu mel ni rek la ñu jagleel ca waxtu ah, daanaka jeex na ah nan ngay tàggatoo non moom dafa teel <laughs> moom mën naa gën a mën naa gën a gudd tuuti rek ah, ah. li ñu war a wax yëpp waxaguñu am na yoo xam ne sax waxuma ko ah lan nga bëggoon a wax ne bëgg naa ko wax lu ne yi dégg damay gis ay wax yoo xam ne man daf dafay daf may naqari comme lan daf may naqari wóor yàlla ay kàddu yoo xam ne du ma bëgg lu dul daf ta dem télé wala dem rajo leeral affaire yi loolu mooy lan parce que dëgg réew mi dafa bari ñu soxor ma kan moo soxor foofu ah, am na ñu ma la ci limal sax waaw du wax nga ko waaw ñooñu dañoo soxor soxor goo xam ne man billaay lu mu wax ci ñoom doyul. <laughs> du ñàkk di nga ñëwaat waxaat ci ñoom doyul du ñàkk ne di nga ñëwaat ci ñoom waxaat ci seen soxor gi te tamit ñi naan réew mi dafa dafa metti dafa metti réew mi dafa dafa metti moom fi ñu toll nii tuuti cher waaw metti boobu ñan ñooñu ko teg c'est que sénégalais yi ci bari li ñu comprendrewul mooy du ñii mën nañu fay ñëw 6 mois wala 7 mois rek réew mi am naataange lépp wàññeeku lépp baax mënta ne parce que yaaku ñu fekk moo tax état des lieux bi defoon nañ ko. Mhm. ñii dañoo jënoon xaalis bi pasar pasare sàcc xaalis bi ñii yóbbu ko fii. Mhm. ñii def ay finances publiques yoo xam ne kenn xamul xaalis fi mu jaar. Mhm. donc loolu nag moo waral ñii bi ñëwee fekk ñu dara ci kees yi dara baaxul. ñi nekk ñi nekk public xam nañ li may wax ñi état di fay. temps dañuy yéex a jot seen salaire. parce que yi dafa dëgër. dëgër gi mu dëgër du gouvernement bu bees bi ñoom ñoo ko dëgëral déedéet lu ñu fi fekk la ba ñoom sax dañoo obligé jël seen seen salaire di ko wàññi mhm. pour mën réew mi mën a gën a jëm kanam El Malick mu ngi doon wax temps euh, mhm. euh, de milliards mhm. yàq yooyu noonu noonu na lañ ko gisee te yàq yooyu xajoon na ci réew mi beneen affaire spécimen bi pour pour pour bi ñu war a utiliser si si euh, liste yi si campagne bi woon nañ leen ministre de la justice. Mhm. woon na leen ñoom ñëpp ñu toog xam nga waaw ministre de l' intérieur du moins. woon na leen ñoom ñëpp ñu toog ñu waxtaanee. classe mhm. politique bi ñoom ñu toog ñu waxtaanee loolu. Mhm. ñu proposer leen ne leen spé nañ utiliser spécimen bi xam ne dinañu mën a permettre ñu ñu ñu ñu ñu mën a ñu mën a yàqanal lu toll ci huit milliards. ñoom ñu bañ opposition bi bañ rawatina waa kër Macky ñoom ñoo bañ. ne si dal xam nga ma tax ñu bañ ne si dal. parce que gis nañ ne spécimen bi ñu war utiliser suñ ko utiliser maanaam ki nekk tête de kanamam day feeñ bu baax leer nañ te dañoo xam ne Ousmane Sonko mu sell mi. kanamam mm-hmm. fu mu leer rek ñëpp moom la choisir. léegi looloo tax ñoom ñu ne nañ mm. utiliser bu classique bi maanaam bi ñu daan utiliser xam ne pour nga xàmmee sax photo nit ki sax du yomb. Mm-hmm. te pourtant loolu dañu doon permettre ñu économiser nga xam nga yaakaar ne ñu bëgg nañ réew bëgguñu réew mi parce que instant yi bëgguñu lu dul ñuy échoué te du fi amee suñu borom du leen seetaan parce que si ay metti metti lañ jógee pour mën a accéder au pouvoir fu metti la Ousmane ngoo jaar ku wax dëgg ku dëgg tax a jóg Ousmane Sonko fi mu jaar si politique ba yegg si fii au pouvoir amul benn politicien boo xam ne mas na faa jaar ba yegg si fi mu yegg si nii si pouvoir loolu tax ngay gis ay Bougane di Sonko Sonko lu di jéem a def ni Ousmane Sonko daan def pour mën a jaar foofu mën a mën a Sénégal moom fay jaar xëy na bu subaa dina yegg fi Ousmane Sonko yegg si moom Bougane yow xalaat nga ne Bougane mën naa dina yor réew ah yoon de Bougane xam nga ne yow mënta yor fii ku mënta yor seen TV nañu waxante dëgg yéen bàyyi leen mbala gi ku mënta yor jooni jooni associé jooni jooni yi ñu ngi kaas chaque ñu def ay point de presse di xataraayu ndax milliards leen amal xaalis bi leen amal jooni jooni ku ko mënta yor nga ne yow da ngay mënoo yor fële seen TV gee mënoo koo yor xam ne dara baaxul day toog pour ñu fayee ko sax problème lay doon nit day joxe opinion nga message ko ne ko dàq naa <laughs> ah, jël journaliste mu ñëw di liggéey si yow nga am foo jaarax moom ba takk ko après. ñun xam nañ ah ñun ñi xam nañ affaire ni mu demee de. ñun ñi xam nañ Sénégal lañ dëkk xam nañ mbir moo tax des fois moom day wax te du rendre compte si li muy wax. nga bu toogee di xas Ousmane Sonko affaire Adji saar bi moom Sonko teg xel ne nii summi verre ne nii wax lu ko neex si Ousmane Sonko mais moom ñun ñi xam nañ ni mu fa demee journaliste bii doon liggéey ci yow nga am foo jaar ak moom. Mhm. ba enceinte ko. ah waaw moom Bougane takk ko journaliste bi kooku Thiès la dëkk ñun ñi xam nañ ko. ba am foo jaar moom ba après nga mujj ko takk. takk suuf la wala takk waa tey ku mel noonu. boo ko defee noonu xam nga ku mel noonu ku mel ni Bougane baaxul société bi. Bougane baaxul société baaxul société ku mel ni Bougane baaxul société bi xam la moo tax. lu sax yow xale bu jigéen bu ñëw. si hmm. sa boîte pour liggéey fa. oui nga def ko la nga ko def. Hmm. su la joxee réew mi boobaa da ngay am prérogative pour fal ay ministre yu la neex ay jigéen. di gisanteex ñoom mën nga def ak ñoom nu ne def na kooku baax na ci réew mi esprit bi mu yor noonu baax na ci réew mi baaxul ci réew mi ku mel ni bugaan baaxul ci réew mi te bugaan a xam moom daal li mu mën daal moom bugaan dafa amul jom bu amoon jom comme moom second tour la doon xaar pour ne pas deuxième tour parce que deuxième tour mënta am comme bu mënta am second tour la wax en bon français parce que moom déggul français bugaan comme moom dañu woon second tour lay xaar te man ñoo am loo tax man ñoo am troisième tour moo tax ñu naan second tour. Hmm. comme moom dañu woon second tour lay xaar moom damay dem toog xaar damay dem toog xaar réew mi sama yoon neew ci parce que man maa ne woon second tour lay xaar te yàlla dogal na ne mbir mi amul second tour gaa yi premier tour lañ jàllee mën naa dem toog xaar second tour naa xaar élection yi di ñëw ma xaar second tour bul wax ci réew mi sa yoon new ci mais second tour ngay xaar ba pare. ah dina réew mi la yor réew mi di ko doxalee. ngay dem moment bi Ousmane Sonko Diomaye Faye di doxal xam naa lay def. Hmm. ay vidéo Ousmane Sonko lay dem teel saate di ko seetaan. ok fu Ousmane Sonko doon waxee. mu hmm. teel saate maîtriser jàng xam nga amul ay diplôme aayul noonu mais dina def lu tout ba maîtriser am ay paroles yu mu si jot a jaa jàpp bu dikkee toog gars yi defal ko test mu essayé wax lii di ma rey baa ma rey la. di ma rey baa ma rey la comme ni ko Ousmane Sonko ni mu ko daan defee avec élégance mais moom amul élégance Bougane ñëpp xam ne ne amul élégance moo tax bi ko Pape Ngagne Ndiaye invité keroog xaw na koo rey. donc <laughs> la góorgóorlu daal laa ñu tàggatoo heure bi na. ah tàggatoo nii. waa li may tàggatoo rek mooy. oui remercier oui merci beaucoup. remercier aussi équipe bi yëpp. oui possibilité bi ngeen ñu may ñu ngir ñu leeral sénégalais.